dafa dafa dafa attiré woon l'attention de def d'observateurs euh, c'est-à-dire euh, garder nga sa post poste dindiwuñu ci dara mais da nga wàcc dans dans le rang protocolaire e politiquement euh, bu ñu xoolee taxawaay yi ngay am les combats yi ngay porter doon lañu doon xaar soit am na ñu la doon xaar soit nga changer ministère dem ci occuper un ministère de souveraineté wala boog nga nga nga nekk ci sa ci sa ci sa position wala nga yéeg et quand la liste du gouvernement est sortie dans les dans les dans les médias euh, dans les milieux politiques les gens disaient que Ablaye Sow dafa mer Ablaye Sow est frustré et toog nañ fi benn benn je pense que depuis boobu ba tey yaa ngi doog a def sortie dimanche dernier euh, au grand jury bi mooy sa deuxième sortie non non mais sortie moom maa ngi koy def parce que man politique moom tous les jours ku xam ne comment département de Kaffrine région de Kaffrine mosuma noppalu tant que weekend maa ngi dund am am nekk en bonne santé musuma bañ a nekk ci base bi euh, tey ma def commune bi dem tey suba ma def beneen commune weekend musuma fekk Dakar tey ma am suma wér-gu-yaram loolu nag yàlla moo def aussi ma bëgg Kaffrine lool mënuma nekk fenn feneen fu dul fa nga xam ne mooy suma fi ma dëkk mais <coughs> xam nga réew mi ñuy wax gis naa benn journal sax ne Ablaye Sow est frustré bind ko wax ni sax man tel ministère laa bëggoon dem alors que ça c'est des xam nga man ah, d'abord ci ay rang protocolaire encore que c'est pas très important euh, man baissé wu ma fi ma fi ma nekkoon xaw naa ci yokk tuuti mais loolu amul solo mais xam nga man li ma doon metti mu mun maa frustré ma sentir benn instant ci confiance su président Macky Sall am na fu ma ko wàcc loolu nag moom loolu bu amoon ci laay amee frustration ci laay amee lu ma métti te may mun a li ma la wax fii waxoon naa la ko il y un an fii ci sa plateau man la moi je me vois pas d'avenir politique en dehors du président loolu laa waxoon fii loolu laay répété tous les jours te amul kenn ku ma ci mën a dindi mooy mo loolu nag li muy tekki mooy tant que Macky Sall ngi am bakkan tant que Macky Sall ngi doxal ci politique ci fi mu ma joxoon foofu laay nekk te fi mu ma toog loolu laay def te ci li may dox yépp président Macky Sall ngi ci biir kon man te ku ma xam bu baax xam ni man je ne suis pas du genre à me frustrer d'abord ci fi ma jaar parce que man nee naa leen man instituteur adjoint laa commencé ba fi ma toll tey instituteur adjoint di su ma àdduna yëpp ñafe laa ci xam donc xaw ma xaw ma ay mer xaw ma ay gedd xaw ma xaw ma yooyu xaw ma ay jeu ay bu waa ji defee nii ma def nii pas frustration mais déception parce que tey man su fekkee ni ngi am déception mooy gëw ma yàlla yàlla li ma defal ci wetu président Macky bu ma doyul dara dootuma doy amul jàpp ma ni président am na confiance lu raw confiance bi mu ma jox ci acte yi may posé man loolu laay loolu loolu loolu laay eh, li ma waxoon yëpp li ma président waxoon yëpp avant ñoo ñëw pouvoir avant moom mu ñëw pouvoir bi mu nekkee pouvoir ak ñuy doxal ba tey gisuma ci lenn lu dëñ kon nag man eh, ñàkk maa xam la nee naa la maa ngi doon fàttali fi ma jaar ensuite suma parcours sportif militant du mouvement associatif tax nag kenn du ma dégg frustré kenn kenn kenn ci àdduna mënu ko am eh, mais ñu bëri tey bëggoon nañu nekk suma position tey li may li may njëriñ Kaffrine ci fan laa ko jëlee man maa ko man maa ko def ci kóolute président de la république laa ko jële te loolu nag awma ma payam wax naa ko tànk mu ngi dund. c'est trois ans euh, trois ans dans ministère quand même mën na créer euh, ah, et puis et puis et puis et puis euh, am na ñu jàpp ne sa rôle politique doon doon ànd ak yenn. Euh, portefeuille de souveraineté. waaw ouais, mais non xam nga man xam nga sax cette notion de porte de souveraineté elle relative xam nga souveraineté ci président la dépendre te loolu nit mun a cee wax beneen bi mooy di man li tey président bu ma newoon gardel pale bi ma gardel ko ba mu xam ni garde naa ko man dama gëm loyauté te man doon je suis pas un fonctionnaire à demi mot mooy genre am na ko doon wax ni am na je répète le d'ailleurs le premier ministre mooy une loyauté à géométrie variable moi je suis pas li ma gëm moom président Macky ci idéologie bu ñu bokk ci parcours bu ñu bokk ak ci Sénégal gi ñu bokk gis-gis mu koy jiite te mu jiite ko ci anam yu gën a rafet kenn du ma ci fekk kenn du ma ci dégg may man may séq ak lu ñaaw ou bien may dëgg en privé ou en public man ma wax ou bien remettre en cause li nga xam ne moom la moom la. dafa am benn wax boo xam ne euh, yaa ngi koy wax. di ko répéter sa sa responsabilité la am nga ci droit nga ne euh, yow gisuloo un avenir politique en dehors de Macky Sall et pour man comme déclaration politique c'est très risqué parce que politique du ëmb day xëy wasin aujourd'hui euh, yaa ngi ci wetu Macky Sall demain xamuloo situation politique yi fan la lay yóbbu muy benn beneen bi aussi une l'autre déclaration euh, bu xaw a am buy jur jaxasoo mooy <coughs> pourquoi ce besoin de tout le temps dire au président man su ma su may jàppale Amadou Ba yow yaa tax. non mais loolu loolu c'est lan nga bëgg ñu retenir ci loolu non mais non il faut que man d'abord un moi tu sais man j'ai pas peur de l'avenir c'est une de mes caractéristiques parce que dama gëm yàlla. gis nga fii Sénégal ñu bëri dañu wax ni dañu gëm yàlla mais wóoluwuñ ko man nag dama gëm yàlla wóolu yàlla xam fi ma jógee moo tax j'ai pas peur de et c'est pourquoi xam nga nit ne ko na ñu nga xam ne tey ay Cheikh Anta Issa nekkatu fi. mais continuer nañu am na ñu doon wax ne Ablaye Wade est la seule constante déglu ma déglu ma na ñu naan Cheikh tey duñu déglu ma déglu ma rek. Ah. dama ne la am na ñoo xam ne ay Cheikh Anta lañ gëm ci philosophie Cheikh Anta Cheikh fi continuer nañ di ko gëm. man jàpp naa ni président Macky Sall am na fu ñu jaar. ñu mel ni Diallo Diop bariwul am na lu mu dugal ci sa ci sama jaar-jaar ak ci sama xam-xam ak ci li ci li ma mën kenn du dégg ci àdduna tey ak suba man juyoo naa ak président Macky Sall ci doxalin. loolu laa wax loolu kay am naa ci droit waaye président Macky mën na xëy ne suba bàyyi naa politique te bu bàyyee politique ne bàyyi naa politique fi mu ma teg foofu lay tegu leneen li nag dëgg moo neex yàlla Amadou baa nekk na fi ministre des finances. avant loolu nekk na directeur général des impôts nekk na ministre des finances nekk na ministre de de de des affaires étrangères xaw ma Amadou Ba xaw ma Amadou Ba lu dul benn yoon ñu dajee ci avion mu xam mu xammee ma ni ma xammee ko mais amuñ benn relation le 11 septembre 2022 laa ma sa teg ak moom loxo ñu waxtaan bu ñu xamante président moo tax te li lii lii nga xam ne président dénk nañu ko ñun ñaar ci suñu relation jàpp naa ne maa ngi doxal suma wàll moom mu ngi doxal wàllam mais du loolu mooy dëgg ji mais leneen nag appréciation personnelle bi ma am ci Amadou Ba mais toi aussi wax naa ko tey mosuma koo laq. mais ah, boo xamee Amadou Ba boo xamee Amadou Ba. mosuma koo laq mooy Amadou Ba li ma jàpp ci moom. boo ko xamee le 11 septembre 2022 il y a une relation. absolument personnelle. absolument affectueuse. Oui. et politique que oui. vous avez tissée. mais je n'oublie pas oui elle ça c'est la stricte vérité. waaw te loolu tamit sa de jour en jour ça se renforce de par les qualités que je lui découvre tous les jours de par aussi le respect qu'il Amadou Ba loo ko mënta reprocher c'est un homme respectueux c'est un homme xoolul poste bi fu mu nekk parce que ku nekk mënoon na écraser ñeneen ñi mais dafay déglu capacité d'écoute capacité même de d'encaissement parce que c'est pas facile parfois nous avons les des cultures politiques diverses nous avons des nous, nous sommes d'origine origine yoo xam ne bokkuñu mais day déglu nangu critique et loolu leaders yu bëri nanguwuñu ko donc ci qualité boppam am na lu xam ne kenn mënu ko werante et nag dafay renforcer tous les mais dama ni loolu yëpp nag ak lu ci mënta am wéeruwaay bi président Macky Sall ah, loolu loolu itam may mën a mënoo ma tere munoo ma ko tere te li ngay wax ci gëm-gëm xam nga man dama ne la may mën dama la waxoon fii il a un an deux ans boobu président Macky Sall waxul ni sax du nekk candidat nga ne li nga mën tontu nii yow loolu nga ma tontu woon man ma tontuwaat la ni man ragaluma avenir. comme que ragaloo avenir te ma am wéeruwaay te ci wéeruwaay wa gisuma lu ci ñaaw dama ci nangu taxaw te tey bu may nit di wax ne Abdoulaye Sow nekkoon naa aussi au parti démocratique sénégalais j'avais une représentativité j'avais une représentativité réelle man su suma représentativité commencé wu tey mais li ma président Macky Sall jox ci confiance li ma jàppale ci Kaffrine ba li ma doon gé bi ma nekkee xale bu ndaw di ko rêvé ci Kaffrine ma koy doxal di ko di ko am di ko amal mais loolu su fekkente ni man benn bés am na nag Macky Sall defoon ma sax lu ma na naqari ma ñëw di ko remettre en cause en privé comme en public kon nga foog nga xam ni. sama ngor des na mais xam nga nag. kon nga xam ni sama ngor des kenn du la weddi ne vous êtes très politique. politique rek ngay def loolu dañuy wax rek. waaw ma ne loolu nag. bu ma wax nii bu ne politique rek laay def. vous êtes très politique. Ah. mais. dimension politique bi nga nekk ngay def genre déclaration yooyu ak ni politique nekkee sable sable mouvant bu doon may Amadou Ba bu doon may Amadou Ba damay am dama man sax damay xoolaat sama relation ak yow vous n'avez mm. pas à donner des cautions vous n'avez pas à donner des gages vous n'avez pas président toog et puis Amadou président toog nga ne Amadou mais Amadou xam nga euh, tant que tu auras euh, nu mu euh, le soutien tant que tu seras loyal au président man maa ngi ànd ak yow mais mais loolu. <laughs> <laughs> wax bi dafa gauche. mais non mais man man yow nag yaa ngi bëgg a nekk seytaan. non non non wax bi dafa gauche comme si non mais attends pourquoi tu insistes sur ça. mais président premier ministre Amadou Ba tamit bu mu jëlee kàddu lan la wax exactement président bi nga ko tegee suma loxo ba tey ñu am lii ñu ngi waxtaan ba guddeeg bëccëg te na bu ñu ko xam nga man bokkuma ci ñuy raser les murs dugg fii wax fii génn fii wax fii man loolu gën a man dëgg rek laay doxee. président Macky Sall suma relation moom dëgg rek lay la lal moom xam na ko. mais nga gérer man je suis pas du genre je suis pas du genre ay ay ay renseignements yu taxaw ci ay buntu kër di wax diw génn na kër gi dugg na man laqatuma ci dara suma àdduna laqatuma ci dara tey su may waajur yu ma jur xam nañ ni man suma position dama koy mos a assumé ma mais loolu su ma ko assumé parce que nag attendez may mun a am na aussi ay wax yu fi jib ku nekk wax na ku nekk def na ku nekk jëw na ku nekk bind na waaye man itamit sama xel laa yor ak suma xol xel mi ak suma xol mi dama ko bëgg lal ci dëgg